noppi ku ci nekk xam na ni kon nangu na ngir daal di bootu ca ginnaaw morom laas di ñu xamal ni sax yëfi yamul foofu ndax ba ci Arouna Dia noppi na ngir ànd ak kii di Abdoulaye Daouda Diallo waaye tamit Aly Ngouille Ndiaye mu mel ni mën nañ ko sax méngale ab coalition bi nga xamante ne taxaw na tembe ngir présidentielle yi ñu dëgmal rawatina ci tiru benn Bokk Yaakaar donte ci biir yéenekaay bi ma ngay xam le ni njot nañu ni tànneefum njiitu réew mi Macky Sall Amadou Ba lay doon kàddug Amadou Ba ci biir yéenekaay enquête moom premier ministre bi lu mu gis mooy jekk nekk na lool ci taxawaay ak ci jaar-jaar waaye tamit ci xam-xam ngir wuutu fi kii di Macky Sall kàddu yooyee nga xamante ne premier ministre yëkkati na ko ci ab émission l'observateur dafa jàpp ni dafay jéem a fexe neexal ñi nga xamante ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar rawatina njiitu réew mi Macky Sall wax na tamit ci li nga xamante ne moom lay xaar ni dogal bu war a tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall engagement am ci wàllu politique ak sax li nga xamante ne moom la ko Serigne Mountakha daal di dénk doomu parcelle bi ci xët bu njëkk Dakar Times li mu ciy xamle moom Amadou Ba moo ni sénégalais war nañoo bég lool ci ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Macky Sall ak li mu fi def mu mel ni kon démb Amadou Ba bàyyul dara ci wàllu politique rawatina politique ci Sénégal dafa mel ni jaxasoo dina ci am carte gi mën nañ ko sax séddaleaat l'observateur moo ni jàngatee ndax dafa gis ni génn président Macky Sall ne du doon candidat ak jafe-jafe yi nga xamante ne Ousmane Sonko am na ko ci wàllub yoon fekk ñuy waaji xalal yoon kii nga xamante ne mooy Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade ba ci sax ana moo war a Dakar loolu yëpp dina am beneen taxawaay bu ñuy gisaat ci géopolitique gi fii ak élection présidentielle yi ñu dëgmal élection présidentielle mi Mimi Touré moom daf cee fas yéene bokk moom jëriñ ju njëkk ja woon seek waxtaan wu ya ak bis bi la jour wax na ci mbébétam bu fekkante ne denk nañ ko réew mi bokk na ci li nga xamante ne dab ci taxaw tembe muy bépp dossier bi nga xamante ne yóbboo nañ ko ci CREI ñu daal di koy càmbar mu ngay nettali sax coowal Karim Wade jaarale ko ba ci doomam ak li ñu ko doon woo sax ba ca conseil des ministres Aminata Touré moom wax na ba yegg ci parrainage bi nga xamante ne andi nañ ci coppite mu gis ni kon dëppool ak yoon rawatina lu jëm ci député yi nga xamante ne mën nañ ko ci yokk état mu mel ni ku gën a yokk dooleyam rawatina ci ay manifestation yi nga xamante ne dañu koy tere gannaaw événement yi xewoon ci weerub soin boobu ak léegi Sud Quotidien ab jàngat la ci def mu gis ni jamono ji tembe mën nañu wax ni état ci boppam mooy def lu ko neex te opposition moom dafa mel ni lépp lu état def def ci tënku lu koy firnde muy manifestation bi nga xamante ne f na namoon na ko amal ni ki démb ci ajuma ji ay opposant bokk ci waaye état da leen ko gantal mujj gi ñoom ñëpp daanaka dañoo bank ci dogal bi nga xamante ne moo ko jël ni kon am na lu bees ci coowal Karim Wade ndax bi ba Bourgi mi ñu jàppoon ni daf ci takkoon rip mujj na am ndam ci wàllub yoon gannaaw ba mu ko yëbbee ba ci biir réewam libération yokk ci ni kon état ci boppam yemul rek ci laj waaye dina ca ñàkk xaalis bu bëri yéenekaay bi dikkaat ci yaatal ci dogal bi nga xamante ne kon cour de cassation bu France daal dina koy jël gannaaw kon ba ñu tegee loxo lépp li nga xamante ne mooy moomeelu Bibo Bourgi en tant que ressortissant français moom ci boppam dafa dugaloon ak procédure arbitrale ci li nga xamante ne moom la ñu ay mbiram waaye état bu Sénégal ak France ci boppam am na lu ñu xaati xaatimoon ne ay déggoo ci wàllub aar lépp lu jëm ci li nga xamante ne moom mooy investissement seeni doomu réew mu mujj gi tribunal li mu jàpp mooy investisseur bi di Bibo Bourgi ci boppam li ñuy doxalee ak moom dëppool ak yoon dëppoowul sax ak ak ak yeleefu doomu aadama moo tax nag muy sàkku ci état bu Sénégal mu daal di fay lu toll ci 243 virgule 30 millions d'euros ngir rek wàllub ndàmpaay ci li nga xamante ne ñàkk na ko ci investissement am rax ci dolli état ci boppam dina fayaat lu toll ci 318 millions maanaam ñetti téeméer ak fukk ak juróom ñetti millions d'euros ki nga xamante ne mooy Bibo Bourgi koppar gi yëpp le quotidien le quotidien daal di koy xëyma ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett lu taftal juróomi milliard bi nga xamante ne kon état bu Sénégal dina ko ñàkk te war koo fay ki nga xamante ne mooy Bibo Bourgi lii moo tax Walf Quotidien xëy tey daa di wax ci ndem si yàlla CREI mi nga xamante ne moo indiyoon coow li yépp ni kon ab ëttu attekaay la bi nga xamante ne ak koppar dëgg la yàqal réewub Sénégal ndax li mu ñàkk ci kanamu Habiba Bourgi waaye tamit lépp li mu dugal ci procès Karim Meïssa Wade ci boppam ak li mu ci jëlee daanaka lépp boo ko xoolee ay perte la Sénégal wéy di perte ay ndawam ndax ci mbëkk mi nga xamante ne ñoo ngi fay jaar ba léegi ay bakkan yu bëri di corot enquête quotidienne def ci ab gëstu bu yaa niki tey ji wax ci mbir mi nga xamante ne tiis na lool te ñu koy nemmeeku fan yëpp mu mel ni gën naa yokk kuréel gi di Caminando Fronteras mu ngay xam ne ni lu toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar doomu aadama ñoo réer ci géej gi ci biir enquête li njiitu réew mi Macky Sall di sàkku mooy ñu daal di fexe ba bërëb yu ñu jàpp ni kon foofu la ndaw yi di jëlee départ ngir dem ca tugal ñu daal di yokk kon surveillance bi muy takk der yi takk der yi ak ndaw yu tobaronkoto ni ki démb tàngoon na jip ndax ci gox googee nga xamante ne ci diwaanub Kédougou la nekkee askan wa ñoo gënoon doon xeex ngir li nga xamante ne dañu koy caxat-caxatee mu nekk ci seen suufa di oor bi loolee teguñu ko ci yoon moo tax démb ca gox ba moom na jip am sax yéenekaay bi di 24 heures Birame Seck di ci addu ndax njiital forum civil nee na entreprise yooye mënuñu leen bàyyi ñi wéy rek di roppi ay milliards yi nga xamante ne ñu ngi koy jëlee ci gox yooye fu ci mel ni kon tabaronkoto te askan wi gisuñu ci benn yoon seen bopp Bougane Gueye Dany daal dina ci addu ndax jàpp na ni kon loolu bokk na ci liy gën a loo réewub Sénégal kàddu Bougane mu ngi tamit ci yéenekaay bi di la tribune moom njiital gëm sa bopp li mu jàpp mooy lu jege ñaar fukki junni kilogramme yu or daanaka jëlee nañ ko diggante 2022 ak léegi ci région bu Kédougou moom jiital de média jàpp na ne sax loolu boo ko xayma toll na ci juróom benn milliard ci suñu koppar te moo ne de Sénégal mënoon na ci sukkandiku ngir rek sukkali boppam wàllu tàggat yaram Stade Quotidien xamal nañu ni Al Nasr muy club arabu saoudite bi mu ngi waaja amal duo bu mucc ayib muy diggante Sadio Mané ak Cristiano Ronaldo nga xamante ni ñoo war a bokk club ca Riyad yéenekaay bi diyo en la ko duppee ndax ñoom ñaar ñi booleen boole am nañu lu toll ci juróom-ñaari ballon dugal nañu ci seen lu jege junniy